loolu baal ma baal ma baal ma baal ma eh <laughs> man nag jigéen laa la ja góor laa la jaawale woon maa ngi jégul maa ngi jégul je te croise. non man góor laa sax. Ah, ah, ah, ah loo tudd. Ibu Ibu ah Ibu. Ibu laa ah waaw euh, man sa morom mi bàyyi laa respecté ma. Euh, tudd Ndeye Ndiaye. yaa ngi dégg dañ ma dégg dégg may déglu rek sa morom mi bàyyi laa dama bëgg respecté ma man nag loolu yëpp du problème man nag bi dem ba tey maa ngi wër si quartier gii di laaj ci kër Raja yaa ngi dégg ndax kër dama dégg dafa ber benn natt boo xam ne ñëpp a si bokk ñoom Kumba yaayam ci biir ñoom Maguette Diouf ci biir ñoom wooyu ñoom Khadijatu Ba ci biir ñoom ñoom Seka ci biir yaa ngi dégg njëkk ñoom dégg naa sax ñoom ay ay ay sax na xaw ma ay dara ñoom ñëpp ak ci biir. yow da ngay xanaa wóoroo yow sa xol bi du génn. non man noonu la noonu la sama tasson bi la. sama tasson bi léegi nag damaa bëgg nga wan ma kër rajaa ma dem ci moom bokk natt bi ne ñëpp ndaxte man ñeenti jabar laa yor ah. ñeenti jabar laa yor raja raja góor la wala jigéen. man na xaw ma. neen daal raja moo yor na cinquante mille bi ku teggi am quatre cent te quatre cent bëri na. waaw moom nu mu mel ah, raja ah, moom xam lu mu mel. yaa ngi dégg mais nag bëgg naa nga wax ma bu dee xam nga kër raja yóbbu ma foofu man nag yow nag góor laa la jaawale woon. non man soo ko def yii baaxul. man Ibou laa tudd Ibou laa tudd. ah Ibou waaw. léegi wax nga dëgg day def nag cinquante mille ku teggi am kasa waaye raja boobu laajte yaa de. ah man man garaw man ah. ancien combattant la matricule deux mille de sa quatre-vingt-quinze ram jees quarante-sept laay sol kon xam nga ni a ah, mu rajaa lu mu tiiraa tiiraa maa gën a réew a yàqu na ma respecté rek da euh, ah, waaw nga la rajaa dëgg foofu la rajaa dëgg bi waaw foo jub yàlla na fi yàlla jub waaw kaay kaay kaay xoolal waaw même raja dëkkaat na même koñ bi gis nga boo moom moom la wala lan la moom moom bëri mi ngi waaj a c'est que rajo seen kër day dox. ah day dox waaw waaw waaw waaw. léegi boo avancé nii. ah mu avancé nii waaw waaw. déedéet kaay kaay. du côté boobu de sëñ bi. ah du ah mais da ngay gaaw nag da ngay gaaw nga wax ma fu rajo dëkk nag de damaa bëgg bëgg te balaa muy tëj natt bi waaw. boo continué nii bu ma continué nii waaw. waaw waaw. waaw xanaa bala ngaa doon ñu wax la fu rajo dëkk. dama sonn ci laaj ci kër la jaar. waaw da nga may déglu waaw waxal. boo continué nii boo continué nii. waaw balaa ngaa continué loo xamul woon wax. waali waxal waali waxal waxal waxal. léegi baax ma bañ laa joxoon. déedéet bu ma waxal rek. waxal léegi koñ bi may waaj a bi ma lay waaj a joxoon. mooy fan. da ngay jàddu gauche. damay jàddu gauche. bu jàddaat gauche. waaw koñ bi nan la. sëñ bi boo doxee ni nga jàdd. waaw moo doxee ni jàdd. nga jàddu gauche. gauche waaw. waaw waaw. boo jàddee gauche. waaw nga jubalaat. waaw ba tey. déedéet sa droit ngay jubalaat. waaw. waaw. nga gaay gaay gaay. rajo bi kii wul noonu tamit sëñ bi ko ko ñu la koñ koñ bee la. fa la yaa dëkk. ah fa la yaa dëkk. fa la yaa dëkk waaw. mais xoolal dugalal tout droit à à à gauche. nan nan nan nan nan. dugalal tout droit quatrième kër. mooy mooy mooy kër ga am buntu bi. kaay du noonu de koñ bii la. na bàyyi. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi. <laughs> yàlla wasa àq dal. riba riba riba riba saaku deret riba riba saaku deret man lii lii kër Raja sax dafa jam kër Raja kese kër Raja kese di war kër Raja koñ gi yëpp mënuñu maa kër Raja lii lii lii ba jàmmal mais man kër yàlla ci dinaa war dinaa ci bokk xam nga ko bu yeboo bu yeboo nan ko xam man faale ma leen ma ne ko man na ngeen def dëkkandoo yi yéen a ci jàmm gannaaw yéen xam nga leen que rajo moom man man faale ma leen bàyyi nga ci jàmm alhamdulilah booy damaa son wër naa téeméeri kër ak juróom-ñett ci koñ gi quartier gi mënumaa gis raja raja lay wër bis jigi tey ndax démaa digg dafa am benn natt bu muy def natt bi nag digg naa si lu bare da ngay natt cinquante mille boo teggee am quatre cent loolu baax na te man dama am ay njaboot dégg naa natt bi ñoom Xadijatu baa ngi ci ñoom Seck a ngi si ñoom Maguette Diouf a ngi si ñoom Kumba yaa ngi si ñooñu ñëpp ma dégg ñoo ci nag moo tax ma bëgg a bokk ci natt gi. père woo ko père da ngay déglu nag. waaw soo xamee que raja nga wax ma ko lii wax man. waxal alhamdulilah rabil alamin. ah kon Dieu merci. waaw waaw. da ngay alamin. gannaaw ba sant yàlla julli ci booy xanaa da conférence. père da nga may laajte. conférence su ma di. mais da nga may ma wax. waxal. allez-y gannaaw yàlla julli ci waaw maa ngi sant samay waajur bu jigéen Fanta. sama yaay yaayam sama papa papam sant képp kuy population aslem Padois rawatina Grand Yoff xam nga maa leen di nuyu daal di leen gërëm di leen jox seen si laajte bi ma laajte ndax da nga maa laajte koo xam ne dama ko xam saa yoo pare rek nga wax ma fu rajo dëkk père da nga laajte koo xam ne dama koo xam sama xarit la sama benn bakkan la maa ngi moom bool bi gis kubéeram la da koñ bii ngay jubal tout droit. Ah. booy rajo booy am na ku ma tasante léegi xaw ma góor la xaw ma jigéen la naan ma koñ gi sa gauche sa droite.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 209 75. Notre site internet www.cefas-du-6sénégal.com. sa ndeyjoor ba ba damaa sol te damaa wóor mooy day leer nañ li ngay wax dëgg la. waaw xoolal weer bi ne loolu la garaaw nga bàyyi ma ko. bu ko bàyyi bu ko bàyyi. ko bàyyi bu dee xam nga rajo kay ah li ma daloon léegi. léegi rajo rajo ngay wax. ah man xaw ma tasante naa koo xam ne xaw ma góor la xaw ma jigéen. que ñoom Raja. dañuy def nii. waaw nii. tout droit. tout droit waaw. gis nga premier koñ. waaw premier koñ. deuxième koñ. waaw troisième koñ. mais père dama lay expliquer. saa yu koñ yi jeexee nga wax. père xoola koñ yi troisième koñ bi la da ngay jóg ma expliquer la mënoo ko nga bàyyi ma ma dem sama yoon. waaye yow trois yow yaa ngi ne premier koñ deuxième koñ troisième koñ. bu ñu yàggee kër koñ. booy du ma yàgg si quatrième koñ bi père xaaral ma expliqué la kër gi. waaw léegi xoolal premier koñ ah léegi bàyyi bàyyi troisième koñ boobu day taal xoola. yoon bi. bëri yoon yoon nii ñu nii. yaa ngi war waaw dama lay expliqué. ngay jubal tout droit. waaw. nga génn correctement Béthio. bàyyi ko booy bàyyi ko. bàyyi nga génne correctement Géthio correctement Sam Canada ay waay kan moo xam kër Raja kaay woon ma ko. kan dama yóbbu kër Raja léegi. waaw loolu gënul gaaw. waaw a gaaw dama yóbbu. Ah, ah, loolu kay moo gën a gaaw man kay ay tàllal yi ngay wax ni. Eh, yor nga man courtier laa de da ah, nga eh, man nag wax dëgg yàlla. chef de quartier laa. waaw xam naa ne xamoo loolu. waaw waaye comme nag yow courtier nga. yàlla baax na. quota yi am si chef de quartier bi. Ah. incha allahu dinaa la ci may. non man soxla ma loolu man naaj bi daa tàng da damaa wóor balaa maa dox tànk ak tànk fu feree ko de da ngay génnee deux mille sama déplacement. waaw dëgg yàlla yor ma deux mille yor ma ñu ñaanalante. waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw xam nga kër Raja demal. yéen booy yéen nit intérêt ngeen yéen nit yéen nit cëb cëb ngeen waaye ay cëb cëb ngeen jugal fii. mais pourquoi je suis si beau Oh my god! Je suis très beau! Eh, regarde-moi sourire. asalaamaaleykum man ka alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw moom. gént wala man man man man man man man non man démb man. soxna si yaay raja. mën naa Ibou. waaw waaw ñu koy Ibou ñu ko. gaa yi dañoo jum dañoo jum. man man ñun ñun ma yaay raja ah yow la yow. ah yow yaay raja yow soxna si yow nii noo ko mënee yow ah yow ak li ma si ni ko koñ ngi fii wëndeelu quartier quartier dugg naa di laaj ci raja nekk yow mi yow laa romb yow mi yaay raja. loolu lañ naan l'apparence est trompeuse. mais sama man sama moromu baay la. mais tu es extraordinaire hein et tu es extraordinaire. aha léegi damay wax ngay jël li mel. wala nag maa xamul wala nag maa laajtewul. bilaa may nekk balaa may nekk man chef de quartier ancien combattant laa woon matricule deux mille deux cent quatre vingt quinze Ramdiès quarante sept laay sol man dama bëgg nga respecté ma te man amu problème yooyu. Raja. maay chef de quartier bi nekk si koñ bi maanaam yow yow koñ bi yow tabax. waaw si yaa ko buntu kër yow yaa ko monté. waaw fenêtre yow suuf si yow yaa ko fabriqué. tali yow yaa defar yow chef de quartier. man damaa yaakaar ne da ma sama ñaari a naa ko. waaw loolu loolu loolu la garaaw garaaw. koro ba wis euh, doon lay. Hmm. ba ma doon lay for sama benn wis. for na ko keneen ki la dafa mel ni. xam naa ne yow balaa ngay dof. doomu dof loo. Hmm. gannaaw man sa morom yi bàyyi laa te aw ma mais yow attends yow chef de quartier da nga am def formation chef de quartier. Euh, loolu yëpp bul ko lijjanti. Ah, en BTS. lijjante loolu. loolu sa yoon nag damaa bëgg nga respecté ma te nga jox ma sama cër gi ma moom ndax man aw ma problème yooyu. waaw kay li war a sama tànk leneen tax xam nga ko ndax fii laa nekk di la wër ndax natt bi ngay def ma dégg natt gi mu am solo lool dégg naa natt bi nag ñu si bokk ñëpp dégg naa ñoom xaddi seetoon ci la natt bi. ñoom màggat a ngi ci natt bi ñoom seka ñu ngi ci natt bi ñoom kumba yaa ñu si ci natt bi ñoom xaddi ñoom ñeneen ak ñeneen ñëpp si ngi ci natt bi léegi nag natt gi nag dama see bëgg bokk ndax man njaboot damaa am njaboot te korite gaa ngi ñëw te natt gi dégg naa cinquante mille ngay teg ku teg am quatre cent loolu kay baax na. Euh, yow naroon nga bokk. waaw mais sama natt bëggul wax lu bari. Hmm. parce que moi je parle peu moi je parle doucement moi je parle heure par heure seconde par seconde jour par jour minute par minute uh, weer par weer mais je parle pas every day every time you are very talkative babe okay sister. ah you should fucking your mouth. yeah je parle français. léegi mënuma bokk si natt bi. yow wax dégguma ma ceexee xaal ma dexee. man loolu rek nga gën di dégg. man yow. waaw kanante exam naati. man loolu sama yoon nekku si. man boo ma lakke anglais ma làkk la naar. nga làkk ma français ma làkk la pël. man loo ma làkk mën naa la kaa waaye zarat an ni hëpp gëyëm man la gëyëm laa wax zarat an ni hëpp gëyëm waaye man li ngay wax dama kaa dégg eh, man la zarat man la fii la jaara yàlla jaara jaaree Cocktail une explosion de saveurs dans une même et bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel buy bi nag day wàññi yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi oh, oh.